asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu dooree rek wax ci wàllum wér-gu-yaram institut pasteur bu Dakar ci lëkkaloowam ak ministère bi yor wàllum wér yaram ak fondation bii di FOND ñoo taxawal benn projet ngir taxawu prestataires yi ci wàllum diagnostic jangoro yi ci mel ni sibiru ak yeneen yi infection virale mel ni biir buy daw projet bi nag dina tax ñu xayma naka la ñuy jëfandikoo antibiotiques yi ba benn tout tànk du ci loru projet bi daañu ko tàmbalee ca Mbour Fatick Tambacounda Tambacounda ak Kédougou pour ñu teewlu ay kàddu njiital surveillance épidémiologique ak post vaccinal ca ministère bi yor wàllum wér gu yaram di docteur Boli Diop ci micro la ñëf na. Sénégal ci tout tànk yi ay feebar yu nga xam ni dafay am yaram bu tàng deen yëpp tamit feebaru biir bi doo tamit dafa leen yëpp donc ñu def benn agri bu nga xam ni dafay tax vraiment euh, ñi nekk waa Kër di faj gën a mun a xarañ ci nu ñuy gisee feebar yi. moo si gën a xarañ tamit ci ni ñuy joxe médicaments yi. gaal ñu tëddee booy xool képp ku ñëw ci wàllu kër docteur am yaram bu tàng li njëkk xaat moom mooy sibiru parce que tamit dañu nekk ci dëkk yi xam ni sibiru daf fi am doole euh, ginnaaw bu ñu xoolee xale bi yaram bi tàng ni amul sibiru fii dañ tàmmoon di joxe systématiquement antibiotique sans pour autant xool lan mooy euh, euh, indi foofu feebar xam nañ ni ci jàngat yi yaram bu tàng xale bu nekkul sibiru. mun na nekk doomu jàngoro bu ñu wax bactérie wala doomu jàngoro bu ñuy wax virus te bu ñuy xool ci yooyu euh, doomu jàngoro virus yi ëpp te bu ñuy xool ñun suñu nu ñuy fajee yi bu ñu gisee ni amul siwu rek dañ koy jox antibiotique alors que war nañ def yenn gëstu pour xool est-ce que yaram bu tàng boobu am na ay mandarga yu wane ni euh, virus la wala bactérie la pour ñu joxe waawal wala déet antibiotique algorithme bi nag dafa ñëw nag pour jàppale ñu ci loolu. pour bu ñu xayma xale bi ginaaw bu ñu ko defalee TDR palu mu négatif ñu xool naka la ñuy euh, wàññee vraiment prescription antibiotique loolu bi ñu koy jëfandikoo ñu ngi koy jëfandikoo si ñeent euh, bërëb ci Sénégal loolu nag dañuy xayma bu baax xool euh, bërëb bu njëkk bi mu ngi nekk mbuur loolu la ñuy wax poste santé Mbour Tukulóor foofu lañ koy jëfandikoo tam ñu jëfandikoo ko Fatick ci poste bi ñuy wax Njaay Njaay ginnaaw ñaari bërëb yooyu dem nañ tam ba ci biir Sénégal Tamba poste santé de Pont tamit ñu jëfandikoo euh, jumtukaay boobu ak tamit Kédougou ci poste santé Dalaba bi ñu ko jëfandikoo nag wax dëgg yàlla am nañ ci ay euh, euh, mandarga yu am solo